asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement mbokk fas yéene leen ci li nga xam ne mooy programme 14 mai 2014 mu ne ñoo ñoo daje te bu ñu daje rek dafay neex mu am solo trop ndax xam ngeen nag 14 plus 14 égale 28 28 plus 5 xam ngeen ko égale 29 euh, te 1 plus 1 égale 2 loolu yëpp la boo ko tënkee xam ne loolu kéemaan te daw yaram nga xam ne mooy réalisateur central bi di l' Pierre Da Silva feggoog ñi nga xam ne mooy équipe technique bi nga xam ne nag dañuy sawar bu ñu toogee ci seen émission dalee ko ci ki nga xam ne nag mooy Babacar di ingénieur di nuyu tamit ingénieur toog di ingénieur bu mag ak ingénieur am am di ingénieur bu jigéen bi di ki nga xam ne mooy madame Guissé feggoog mademoiselle Diaz di caatu ingénieur yi nga xam ne nag ingénieur en réalisation wàccee si suuf nuyu nañu Kara sécurité di am mbégte ak contentement bu mag tamit euh, ki nga xam ne ci grand frère euh, suñu xarit di kuris ci kanam tuuti di ngeen ko fi gis léegi mu daadee taxaw am benn xibaar boo xam ne dina ci am waaye ñu ni tamit Ablaye Ndiaye comédien Kwasi Larry Samb ak ki nga xam ne mooy Roxee Samb ñoom a am contentement ak équipe chauffage bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir télé Futur Média di tàngal muy neex ñu am mbégte contentement kon mbokk yi te programme bi ñu ngi ci ànd ak li nga xam ne mooy meew bi ñëpp ñu naan ma El Hadj la nga wax dëgg la nee naa leen meew bi bi mu ko commencé naan ba sama teint bi dafa nekk teint café au lait ak lait au café macha allah meew bu neex la da nga koy naan di noy noy bu am solo te yaakaar naa ne sénégalais war ngeen ko xam Florian dafa baax ci li nga xam ne mooy xurfaan waaye tamit baax ci at euh, euh, li nga xam ne moom mooy seen jus seen ngalax seen lépp loo xam ne da ngeen koy def te meew xeetoo ko rek bu yowoo nga xam ne boo ko jëlee dana am solo te li ci gën a neex gis nga bu ndaw bi mën nga cee am ñetti litre te du tee goût bi du changé ndax meew végétal la maanaam dañ ko ratt ci ki nga xam ne moom mooy nag waaye xam ngeen ne lépp nag boo ko boolee mu nekk 100 pour cent lait boo xam ne entier la kon mbokk yi ñoom nañ ci àndal di waa miso ñu leen wax grand chapeau ndax bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu xibaar bi nga xam ne moom lañ ñëwee tey xam ngeen ne maître Ablaye Wade mere na Mimi Touré ndax Mimi Touré moom ci boppam tamit yëkkati na ay kàddu yoo xam ne nag nee na Ablaye Wade bëccëg bi rek lay wax mais guddi gi day ci suuf di ñaan mu nekk loo xam ne nag euh, lu metti maître Ablaye Wade dina ko ci tontu waaye Mimi Touré dina ko ci wax bu ñu fàtte ne nag dinañ seeti fi nga xam ne moom mooy Gambie Yaya Jammeh ci boppam site internet di IGFM ñoo fa defoon reportage bu mag nee nañu daal émission Kouthia Show moom directeur télévision directeur général bu rajo ak télé bu Gambie nga xam ne nag mooy monsieur Lamine xam nañ ko nag nee na moom boppam euh, Yaya Jammeh ci boppam heure Kouthia Show du ko raw am na mbégte contentement ci diggante Sénégal ak Gambie xam ne Kouthia Show ñu ko ci rattalaxee di ko ci def ba jàmm mën a am ci diggante Sénégal ak Gambie danañ delluwaat tey rendre hommage à Yaya Jammeh ci li xam ne moom mooy gis-gisam ci àdduna ak gis-gisam ci biir Gambie ak fu mu jëlee yooyu tamit ñu delloo ko njukkal ndax nit ki bu bëggee tamit ba di safoo ba toog di ko wax wax dëgg defee bu bu ñu defee li nga xam ne moom mooy euh, euh, demu gàmb bi ñi war a ñi war a dem gàmbi ak ñi warul dem gàmbi yëpp ah bu ñu ci kenn laaj en tout cas daal yéen toog leen xaar ñu ci xam ne yoon bi dina dem adduna rek amul solo sa waay ba ne woon naa la Youssou Ndour su ma man bàyyi naa ko no non non Pierre non non non man aw ma benn preuve ne Youssou Ndour ñëw na non non non non mais dafa ñëw affaire drapeau moo indi. affaire drapeau no Pierre xam nga man maa ngi non yow mënoo défendre Youssou Ndour parce que non non ma rek soit non déglu Pierre man non Pierre non non bàyyi non amul Patrick amul ay dara waaw waaw waaw non déedéet déedéet man ay non non déedéet xoolal man aw ma moom non non parce que non non non non soxla ma enveloppe man soxlatuma enveloppe parce que dama wax ak lu leer ma ne man bàyyi naa ko man sayee jeex na tey moom pi Ablaye xanaa yéen quoi si ngeen toog fi def Kouthia Show mais man su ma paree tey sama émission Walf Fadjri laay dem defi sama émission léegi jeex na jaral mu may fay sax di wër ci télé yi waaw 2h suba ginnaaw suba beneen télé noonu noonu noonu noonu yeneen télé ak RDV parce que tamit lii mënu nekk quoi non non non la xolal man xolal man man pare naa ci quoi lan la man maa ngi bëgg a jàmm non dama ne la xoolal te ñoom Ablaye Ndiaye Kouassi nee na ñoom ñëpp nee na su dem mais lan nekk sa patron man ma koy woo boobu léegi man maa doon ay bëggatuma ay indi ah ñëpp ñaan nañ ma Kouthia bàyyil bàyyil bàyyil cooli bàyyil cooli mais man lan la bëgg léegi pen pen non pen écoute non pen wuy ma non gra non pen non pen non non non non pen pen pen xoolal bul ma ñaan non pen bul ma ñaan non waata baaba ok baaba baaba yow boo ma dinaa la mën a may parce que netu ko bandum mais bàyyi ma moom rek non non non la moom bàyyi non jabaram moo ko gën a dégg mais ku ci arrangé muy seetaan ay Barça Real Madrid fa la ko teg non non non na ma bàyyi tout tranquille non non non man non non man.